Petit l'enfant Farou Diar arbitre sifflé waat na Farou Diar cokkaas na songo nañu Farou Diar Petit ngi door Petit l'enfant ngi door doole doole doxul jàmm Petit l'enfant daan na doole doxul jàmm ngi door Petit l'enfant ngi door doole doole doxul jàmm